juróom benn fan bu ñëwee ci yeneen feebar deng bi ñu doon wax ki démb nag maa ngi dégg sama mbokku Pikine yi fa laa jóge ñu jël ci deng bi deng bi nag ñun maîtriser nañ ko parce que feebar pour nga maîtriser ko da nga naan feebar bi lan la naka lay wàllantee ak kañ lay ñëw tant que ñu ngi ci tàngoor bi deng day am bu ñaan yàlla dugg ci décembre sedd bi ñëw mu arrêté waaye yow moo koy joxe dañu dëkk ci moustiquaire yi di ci tëdd ngir yow sibiru bi mais yow fièvre yoon bi mu ngi ci yongu chikungunya bi ci zone orientale ñuy dëkk Tambacounda ak Kédougou mu ngi ci ak feneen ak feneen moustiquaire dañ leen di ñaan ngeen di tëdd si biir moustiquaire rawatina xale bu am jëm ba juróomi at rawatina màggat rawatina koo xamante ne également jigéen boo xam ne jigéenu warul la wala koo xam ne ma egsi si dafa am lu ñuy wax ay maladies transmissibles mooy ñi nga xamante ne dañu am feebar yi nga xamante ne du wàllaate mais dañoo jékki-jékki bu njëkk dañu woon ñi am gafaka sur le plan économique ñoom rek la dul wàllu mais gis nañ ne Sénégal nag vraiment dañ nekk dëkk boo xam ne dem ci émergence ñoo développé donc feebar yooyu dañuy ñëw ndax dañoo soppi ni ñu doon dëkkee ku nekk boo xëyoon laax ngay lekk laaxu senkal wala nga lekk laaxu araw nga teg ci soow pur léegi lépp lu ñuy lekk dafa am chimie mais ñaan sama mbokk jigéen ñi élu yi leen attention ngeen waxal ma yeneen jigéen ñi surtout bu ñu yàkkamtee ci ngénte yi soow mi nga xamante dañ koy defar naan 24 heures mu way nañ def attention am na ku wax centre antipoison lan mooy njëriñam nañ ko dooleel dooleel nañ ko parce que gis ngeen intoxication yi ngeen xamee tooke bi nga xam ne moo jógalee ci soo bi ak jus yi jus nag neex na lool ñu ñëpp bëgg nañ ko mais jàpp nañ fii ci marché Sénégal yi jus boo xam ne dañ ci def suukar industriel suukar industriel mooy lan mooy suukar bi nga xamante ne dañ koy defee ay sirop ci usines yi xam ne loolu nekkatul lu baax loolu mook naan li nga xam ne boisson gazeuse la presque benn la donc jus yi bu dee jus de buy ngala na sax buy bu dee jus de bisaab ngala bu ñu baxal bisaab bi parce que boo ko baxalee ferñeent yëpp dafay dem mais léegi jus yi ñuy yor ku nekk gis ne jus yi saful dara ko rek la saf ak mante ak leneen loolu dañ ko war a éviter loolu nag dénk naa leen ko également ci lekk gi la wax nañ sànq saf-safal yi saf-safal yi man maa ngi naan sama kër nañ ko tere sama càmmiñ yëpp ku ne di dóor sa dënn naan sama jabar sama soxna du ko togg mais tey kan moo lekk këram kenn ci ñun du lekk sa kër suba ba ngoon jot ñu ci restaurant yi donc dama bëgg commission santé ñëpp ñu àndandoo àndandoo bàjjanu gox yi àndandoo relais yi ñu dugg former restauratrice yi ne leen nañ dellu ci laurier nañ dellu ci gejj gi gejj gi neex na lépp loo xamante ne mun na safal te naturel dañ ci dellu loolu mën nañ ko def moo gën ñu toog fi di xeex la def ndox mi nga xam ne dañ koy naan jàpp nañ bërki démb ñoo xam ne ndox mi dañ koy jël def lu leen neex dugal ko si mais ko fu dàpp Sénégal ñu jàpp la parce que Sénégal dafa am législation ndox mi doo ñëw rek jël ndox EG bi baax na ba muy agsi suñ kër yi baax na mais boo ko buggee jëlaat di ko jël di ko jaar dafa am traitement boo xam ne da ko war a def kuy def commerce da nga war a tegu ci ay législation donc loolu yëpp tënk naa ko président pour wax ne prévention ak fagaru ak waxtaan lépp lu ngeen soxla si waxtaan dinañ ko def maintenant nag mun na am feebar ñëw bu dee feebar gis nga bi ni ko daanee mu ngi fi nag ba léegi donc koo xamante ne gis ay signe Covid mu na nekk Covid mun na nekk grippe rek mais rek bi sax dama maa ngi leen ci jégalu bu leen ko wax feebar kenn du ko wax rek nga dem ci poste de santé le plus proche loolu dafay fexe ma ne poste de santé post de santé la centre de santé centre de niveau 1 niveau 2 EPS niveau 1 niveau 2 noonu la ba niveau 4 Sénégal amu ko woon Dalal Jàmm dañ ko def niveau 4 hôpital principal na nekk niveau 4 Saint-Louis na donc kenn dootu wax ay prise en ak yeneen ak yeneen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 mu dooleeg centre de santé Koungheul bi gis nga ni ñu ko renforcer am na bloc sunu mooy dañuy opérer loolu yëpp day tax hôpital Kaffrine bi mën a ñoŋ mais bu ñëpp buuboo daal ne bëggatuñ poste de santé bëggatuñ centre de santé ñëpp dañu dem hôpital spécialiste yi nga def nga xam ne ñoom cas compliqué la ñuy xaar dootuñu ko fu mun a xaar nit nag nit rek la bu ñu sonnee xëy na dina am liggéey bi xaw a sooxe donc ñu ngi ñaan ñi nga xam ne poste lañu am nañu leen renforcer poste yi sanitaire dégg nga li ci président wax du toog benn mercredi kenn moo neewu ma fan nga toll ci densification carte sanitaire dinañ ko defar mais carte sanitaire du tabax rek gis nga léegi pour nga nekk infirmier wala sage-femme da am baccalauréat pour nga nekk assistant infirmier da ngay am brevet donc gis ngeen njàng bi li mu méttee tey gii ci yéen fii ku fi gis tey benn anesthésiste technicien anesthésiste balaa 18 heures ñu contractualiser ko amul ni mu ñàkkee fii noonu ñàkk ci sous région bi le désert médical n'est pas un terme sénégalais foo dem ci àdduna bi ñu koy wax moo tax nag ñuy bëgg a jël suñu ay bourse ba pare ne duñ dem ci du ma amul sax dëkku àll toutes les zones se ñu jox lañ suñu bourse bourse Sénégal seen cotisation sama cotisation cotisation jaaykat caaf bi ñu jàng ñu vacciné leen ci kenn laaguwu si kenn dara jotu ko si nga ne doo dem liggéey yi dinañ jàmmaarloo ko yow sax bourse nga jàng di nga dem liggéeyi parce que Sénégal amul ay zone éloignée benn médecin nee na Kédougou n'est pas éloigné c'est Dakar qui est éloigné nañu dem liggéeyi te dem may ñaan kilifa tamit bu ñu kenn ñaanee ne nañ toog Dakar parce que ñun ñëpp kenn dëkkul Dakar ñu ñëpp suñu maam yi dañ koy wàllu si waan rek dañuy dem ñibbi après loolu c'est important personnel bi tamit wax ngeen ko fii les écoles de formation sur 92 écoles inspectées 48 yi benn baaxu ci ñu ngi leen ci ñaan ngeen jàppale ñu si donc son excellence nee na man docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye Moussa balde moo enseignement supérieur dama bëgg si nu mu gën a gaawee ñaan réglé lool toog ci kanam premier ministre yaakaar naa semaine bi di ñëw incha allah nañ toog ci kanam premier ministre école bu baaxul na dem mu régulariser wu parce que mënoo ubbi école de formation en santé xale bi jàng ñetti at ay waajuram fay lu toll ak 100000 francs te xale bi musul gis mannequin am na Sénégal boo gisul mannequin nag mosoo dugg sax salle wala bu ñu duggee ci salle yi loolu wax nañ tous les directeurs d'hôpitaux benn malade fukki nit ak juróom-ñett mënuñu ko tiim les sages et être dëkk bi dëkku loi la dëkku règlement la dañ ko réglementé social ànd donc école de formation yi nga xam ne nekk ñu en règle may ne leen wax nañ leen fi ñuy jaar ci nekk en règle dinañ fi dinañ jaar si ñun nañ jaar ci formation professionnel anak sut bi nga xamante ne moo nekk enseignement supérieur nañ fa jaar ku ñu wax ne defaral sa école na nga ko teg si yoon parce que na nga jàpp ne nit ñi après ñi ngay génne ay nit la ñu laal am na xale yoo xam ba pare xamuñu sax nan la buti tëddee si nit xamuñu ko boobu xale moom du fautif ñun ñii responsable ñu ñun ñooy fautif yi te nañ ko corriger donc personnel bi tege naa ko foofu wala ma dool si ne yéen ñëpp wax ngeen contractuel yi contractuel daaw fii laa toogoon di ko wax syndicat boo signé accord buñ ci tegee dara ne la kii mën na am lii 8 milliards yi ngeen di wax 8 milliards yi ñun ñoo def simulation bi jox ko ministre du budget daal ne bés buñ toogee ba war koo fay nii la tëddee Marie Xemes médecin lii lay am sama euh, jumpaay lii lay am diw lii lay am lii du am ba nga xam ne suñ joxee feu bi rek ñu fay mais buñ ci lonkolee ne ma ñi ngay fay ci cadre bii la ñu te 18 catégorie la en tout cas man du ma fay ci bokkul parce que day nekk faute de gestion xaalis ba nag nekkul ci man damay bañ ñu seet si ko ci man bu ñu fayee ñi ñu war a fay dañ koy delloo ministère du budget xëy na sax mun na mu indiwaat assemblée wala fenn parce que budget nag dafay xaw nu tuuti fiction ñun yoruñu xaalis boobu 8 milliards yi ñun ñoo ko compté ñoo ne bés bu ñu toogee ba ne def leen élargissement nii la war a tëddee loolu dañu si war a gërëm mais war a ñu ci xas donc man yoruma xaalis ministère de la salle action sociale yoru xaalis ñi war a fay ñëpp fay na jàpp ba ci weer bi ñu nekk ñu lañu fay donc ñun yoruñu ko contractuel itam kiy posé question moom xam ne luy budget lu ma ci tontu dama ne fay nañ ñi war a fay ku ne xam ne ne bu ñu fayee ba pare xaalis li ñuy fay la ñuy fay si des ñu delloo ko ñu duñ ci warante ñun nous sommes des techniciens ay responsables fi nekk di warante mais dama ne bu ñu ñëwatee wax leen ko dinaa leen yónnee joxoon naa ko ajaa Sira jaay fi nga xam ne foofu la ñu signé bu ñu gisee leneen rek ñu wax ñu ko ndax ñii samay doom lañ ñii maag ñoo ma maase ñii samay rakk lañ ñii samay nijaay lañ amuñu benn coxarte pour fay leen mais yéen dama leen bëgg a waxal yéen élu du peuple ne loolu nekkul li nekk balaa ngeen fay jóge mun leen ko joxe léegi seen si seen ay boîte ngeen gis ko ma jox ko président amul bu loolu weesoo ñu ñëw si équipement yi ku ne xam na ne léegi léeg nag ñu mere ñu parce que équipement bu baaxul dootul duggati suñu structure yi parce que suñu structure yëpp dafa fees looy gis oto boo xamante ne bu ñu la mayee ambulance ambulance bi daw ñaari at kooku mayu la ambulance dafa bugg nga yow nga tajal ko ambulance bi yóbbu ko feeraay le ministère de la santé loolu du liggéeyam moo tax yéen ku ci am xarit bugg ambulance da ngay ñëw ñu wax la ambulance bi nii la war a demee ku nekk xam nañ ci biir am na ñoo xam ne seet si nañu ñu may leen ay ambulance ambulance bi amul sax fu ñuy téye perfusion ki nga xam ne moo ànd ak malade bi mooy téye perfusion bi loolu ñun bëgguñu ko Sénégal du dépotoir nous nous avons nos normes environnementales médecin la ñu de infirmier sage-femme nekk la ñu mais itam mbalit bi parce que déchets di koy wax nañ ko loolu moom SONAGED mu ngi si ak ñun parce que li ñuy njëkk def moom la ñuy jàngale mooy tri boo demee tey ci benn l'hôpital wala ci benn poste de santé wax nañ leen ko suñu yaay yi doon ñu koon def kenn du boole ñam ak salté wax naa leen ko fii kër jubel ba ma demee nee naa leen bu ñuy boolee ñam ak salté bu yàggee muus yi sax dañuy mer parce que muus yi dañoo war a lekk li des ak yeneen ak yeneen li nga xamante ne mooy déchets biomédicaux ñu def ko feneen ndax loolu baaxul mais loolu tri boobu suñu yaay jàngal nañ ko ku nekk xam ne ne suñu yaay doon ñoon ndox ci mbedd yi amul suñu yaay doon ñoon tuur waasin tóor amul nee naa leen fii si suñu yaay dañ doon jël bu ñu waasee ba pare jël waasin tóor yi c'est plein de calcium def ko ci fleurs yi fleurs yi ñu gas si biir kër gi xam nga nag Dakar amatul fu ñuy gas daal di jël tuur ko ci mais ñun wax nañ ñëwee même soo amuloo ci def ajaa xam nga ko boo si defee doobu taal dootul xeeñati yooyu dafa laaj ni di ko jàngale donc déchets biomédicaux dans nos structures mooy yi nga xam ne moom la ñu jël ay perfusion ay ànd ak ay yooyu noonu gis ngeen bërki démb sàkkal war naa ko premier ministre luñ kenn du tuur yenn yi ci lavabo ndax du dem dafa am lu ñuy wax boudoir loolu yëpp Sénégal xam na ko ñun Sénégal suñu xam-xam dafa màcc ci yooyu mais nag dañ am problème de comportement mais loolu ñun ñëpp ñoo ciy ànd ñu liggéey si bu kenn critiqué kenn ñu nekk tout temps dans la positivité parce que onde positive tam day tax nit ki am wér gu donc loolu mooy nekk ci équipement yi bu ñu jógee donc ci équipement yi ma jeexale ci médicament ak code de santé ma di balu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa santé mu ngi fii yëpp def nañ ko ba nga xamante ne dañ la ko mun a tontu. Honorable député, c'est pas à vous de nous donner, donner la date. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. <laughs> dañoo demoon commission technique ngeen posé 78 il y a eu donc dañ demoon commission technique mu am 78 personnes ñu posé question ñiy posé benn ñi ñaar ñi ñett jéem nañu répondre ci question yëpp jox nañ leen ko mun na am soxla ngeen ay question supplémentaire ay information supplémentaire ñu ngi fi bu ngeen ko bëggee itam li may wax rek nous restons disponible à toute information tey tamit mu ngi nii lii yëpp yéen ko posé ñi nga xam ne seen jotu loon bu ngeen ko indee ñu tontu leen parce que waruñ yem ci plénière beeg yéen ñun yéen ak yéen ak ñun ba Sénégal yëpp nekk en bonne santé médicament ak produit de santé président nga may ma jeexle foofu gis ngeen agence de régulation pharmaceutique dañ ko teg Sénégal ngir lan léegi ngir ne ay faux médicament ak yooyu yëpp loolu yëpp nit moo koy def fi ñu toog ñun di fexe faux médicament du am faux médicament nag nee naa leen man ministre de la santé médecin de surcroît su ma demee bitim réew jël garab dugal ko sama saak indi ko c'est un faux médicament parce que il n'est pas dans la chaîne d'approvisionnement faux médicament du nekk rek ki toog ci buntu marché bi di ko jaay képp koo xam ne jënd nga ko utiliser ko te jaaroo ci chaîne d'approvisionnement bu normal bi baaxul loolu yëpp nag am nañ ko am nañ un comité multisectoriel douanier yaa ngi si force de défense et sécurité yaa ngi si c'est l'occasion ma leen di féliciter ma leen di remercier produit de santé médicament pharmacie ngeen koy jaayee pharmacie ngeen koy jëndee <laughs> pharmacie pare nañu pare nañu pare nañu pare nañu. pharmacie ngeen di dem uh-huh. madame la ministre madame la ministre. pharmacie ngeen koy jëndee. madame la ministre attendez. honorable député honorable député. Honorable député, vous n'avez pas la parole. Chapitre 14. chapitre 14. Honorable député, vous n'avez pas la parole. Chapitre 14, police intérieure de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle, honorable député, article 53. Je poursuis. Article 53. Le président a la police de l'Assemblée. de veiller à la sûreté, sûreté, sûreté Il peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Toute personne qui aura troublé l'ordre ou offensé l'Assemblée sera passible des peines prévues par la législation en vigueur. Si un député continue sur cette base-là, je ferai appliquer le règlement intérieur à la lettre. Madame la ministre, vous pouvez continuer. Donc médicament ak poste de santé poste de santé mooy perfusion ay loolu yëpp da leen ko jëndee pharmacie wala ngeen jëndee ko ci structure de santé publique yi pharmacie si ñun lañ bokk privé tam ci ñun lañ bokk te ñu ngi ñaan yàlla privé Sénégal yi ñu ngi liggéey liggéey ñoom liggéey boo xamante ne des na tuuti ñoom appareil yi nga xam ne jënd nañ ko te ñu am solo sénégalais yëpp di ko mën a utiliser bu ñu amee ay mutuelle de santé bu ñu amee ay assurance maladie ba nga xamante ne kenn dootul dem bitim réew di fa jigaane parce que lépp am na fii ci biir Sénégal environnement de travail bi rek la ñu war a defal donc li ci des yëpp maa ngi leen koy wax hôpitaux yi ku ci war a am hôpital Mbuur Kaolack ak yëpp dégg ngeen li président wax duñu ci teggi meetar koo war a xam ne centre de santé bi ne dañ EPS 1 dinañ ko def li ñuy ñaan rek mooy terrain yi comme ni ngeen koy defee terrain yi bu mu taa terrain yi bu mu nekk ne buñ ko tabaxee du am litige donc yéen a gën a xam li nga xamante ne moo war gouverneur war a préfet valider ko bu egsee si ñun ñu def su ko appelle le projet médical l'approbation sera par donc le ministère des finances et du maa leen di gërëm leen di sant wasalaam Je vous remercie.